la fekk la fii ci machine bi nga xam ne mooy defar café gi bëgg nag expliquer ñu lii mooy lan. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah barke borom Tuubaa loolee maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp ñu ngi nuyoo bu baax di ñaanal bu baax Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg si loolu tànn ak wér di ko ñaanal soxna maam Issa Mbacke Ahlou Café di leen nuyu bu baax a baax di leen ziar di wax ne comme ni euh, ko gisee rek ñu ko daan def chaque année fii ci kër Serigne Touba gi. li euh, sabab bi nag mooy Cheikh Mamadou Mountakha moo ne ni ko Serigne Touba daan defee njaareem la koy defee toog. murid yi jàng xasida kuréel yi jàng yor bernde yi jox ko soxna maam Issa Mbacke ak kuréelu euh, Hizbut Tarqiyyah ñoo xam ne si nii maanaam mbokk talib yi fu ne la ñuy jógee di ñëw di teewlu xasida yi waaye nag bu ndoog jotee ñu leen di jox bernde yi nga xam ne si nii moo mooy mooy mooy mooy ndog yi noonu lañ koy amalee ak at mu nekk euh, ren tamit noonu lañ ko fas yéene amalee incha allah te noonu lañ ko fas yéene dooree fas yéene koo ba liggéey ba ak incha allah. daam café toog kolowu ak yow kii mu dox daam bi waxoo café machine bi nga bëgg ñu expliquer bi euh, mband nga gis yëpp maanaam day euh, baxal ndox maanaam bii 100 litres lay def bee 100 litres 400 litres 400 nga xam ne si noonu lay amalee nga xam ne mooy baxal ndox bi di ko segg. nga xam ne ma euh, diir bu gàtt mën nga cee segg kaf ay ay ay ay ay ay ay cent deux cent kilos café ci diir bu gàtt machine bi nag euh, sëriñ Atou yàlla na yàlla guddal fanam yokk yàlla na yàlla yokki leeram sëriñ Atou Diagne moom moo ko euh, rafaataloon soxna maam bi nga xam ne weeru koor wu nekk da koy sampal mu mu mu mu muy amal café noonu nag lañ koy amalee nga xam ne moom ci ci diir bu gàtt defar kafe yi daal macha allah. chaque jour ñaata ngeen di defar ci café. waaw chaque jour dinañ defar lu toll ak euh, cinquante kilos café cinquante kilos café waaw chaque jour. bi moom bu tàngalee dafa am feneen fu mu koy. waaw fii na ci ginnaaw moom moo koy moo koy segg waaye machine bi moo koy baxal waaye ci ginnaaw moo koy segg. ci ginnaaw ñu ànd sëñ Sané waaw fii mooy li nga xam ne moom mooy segg café gi bu ko baxalee fii lañ koy seggee macha allah nga xam ne seggin wu jaar yoon te murite lañ koy segg incha allah. soo leen paree da koy suukar yéen yéen a yoroon waaw ñoo yor maanaam Hizbut Tarqiyyah yeeg mboolem ñu ñëw ci euh, liggéey bi rek te fas yéene ndogu café gi fii lay jógee ak li wër jumaa ji ak ñi nga xam dañuy dox. te amuñu fu ñu ndogoo dañuy ñëw fi la ñuy ñëw daal di xewlu macha allah buñ ñëw am nañ équipe yoo xam ne suñu ñi ñooy am na yenn équipe yoo xam ne ñoom ñoo yor wàllum service bi ñooy ñooy ñooy ñooy liggéey liggéey boobu macha allah. ci nga gis nag moo jëm fi nga xam ne mooy euh, Daaru Salaam fi sëñ bi nekk tarmus yi moo fa jëm. waaw waaw tarmus yi bak Sëriñ Tuubaa nga xam ne ay sàll yoo xam ne. Euh, hospital soxna Euh, jël lépp nag jënd ko taalibe loolu ñu mën a ñamal ci soxna maam Isa nga xam ne dañ ko namoon kooru daaw bi amutoon ren ñu namm ko waaw kooku nag moom day kenn mhm. sëñ mut far xëre bàyyam sëñ ma sàmbaay maam waaye loolu du ko defal laxasaay wax ne sëñ Tuubaa dane mhm. waxoon nag suñ ma roqee ba suñ ma sàmba suñ ma Musaa suñ fol li ma yor day jaay mhm. nee na du sant yi moo la ci boole waaye da ngay jaay da ngay jaayante jënd soxna maam Isa nag daa jaayante nekk ko xam ne soxna si gaawoon moo ko yar jox ko cër rafaatale ko kafeeg sëñ Tuubaa gi mu ciy faj aaja nag xam nga ci dara kooku moom keneen la mënumaa wax ci moom waaye daal maa ngi leen di xamal ne ku bëgg sëñ Tuubaa te koy liggéey la ngoog dañ ci dara borom Tuubaa lii courant ak gasoil kor ak gasoil lay jël macha allah. fii koy contacter waaw fii lañ koy contacter fii lañ def gasoil bi bi nag mi courant bi nag mi ngi ci allah. sant nañ bu baax xam naa. ñu jot ñu fi fekkante. yàlla nañ ko yàgg def. ci allah rabbi macha allah kon rek incha allah. maa ci soxna si incha allah jërëjëf macha allah. wa kasiran xayraati haazal baladi ورزقه والتكفي عن أكديم ولتثبتا فيه جماعة تخيم الصلوات الخمسة دأبا ياكيم ولتثبتا فيه جماعة تخيم الصلوات su set dinañ dinañ sàkk sukk de sàkkoog nangam ak lu mat vingt kilo café dinañ ko segg ñëpp lañu li wër penc meeg lépp café gi sax des waaye sant yàlla rek sant yàlla ndax ma jot gis nañ day gën a yokk mbokk taalibe yi nag ñëpp jàpp nañ ci waaw ñi ci biir réew mi ñi ci biir réew diaspora bi ñëpp kenn ci nekk feeñal nga ci sa yéene ndax ku gis image boobu da ngay daal lii war naa ci mën a def te boo defee ñu defal la ci bi moom géej la rek di la jaajëfal Mbacke di la ñaanal rek yàlla guddal nañu ko yàgg a rek Mbacke borom Tuubaa mën a wax ci soxna Mame Issa li mën a wax ci soxna Mame Issa biiram ak biteem lépp def ko ci liggéeyu sañ Touba koo xam ci liggéeyu sëñ Touba bi xam nañ lu mat ñaar fukki at lu ma ci yoonu sëñ sëñ Touba la koy def lii mi ngi ko yóbbu ci jàkka ji mi ngi ko yóbbu sar saara sëñ Touba doon takk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoo ñu ngi koy liggéey jàkka joo xam ne ji moom jaayante na fa dafa def ay millions dafa jaayante di laaj xaalis ñu fay yëkkati jàkk fay def foog alalam di ko fa def muy Sarsara bi mu jógee Sarsara événement yi dañoo jege tabaski ñëw muy jaayante ci xarit tabaski ci Sëñ Muntaxa bu jógee ci xarit xarit tabaski ñëw ci kore ci ci jumaa ci liggéey bi maanaam liggéeyam àddunaam ak euh, toogam ak yekkeem mag léppam daal liggéey Sëñ ak ñun ñaan moom liggéey Sëñ Tuubaa nag yàlla Sëñ Tuubaa ko moo moom ak ñun ñaan ak moom waaye nag moom lépp lu mu ci liggéey Sëñ Tuubaa la ko am li ma xam ci moom bëri na waaye commencé sori ci <laughs> ci moom xol bee xol bee xaw a tool ndax kii booy wax ci moom daanaka moom mën a wax ci moom ndax ñun naan ñun naan ñu koy ñaanal mu yàgg fi te wér rek waaye ndax moom toogam ak jekkam lépp liggéey Sëñ Tuubaa ku xam ci liggéey Sëñ Tuubaa nga ko xam ñu ngi lay ñaanal yooyu tam nga yàgg fi loolu tëgg ñaanal baax a baax ولم نجد بجاه اليوم وجاه من ولد fii waruna mislo walam najid muhammadin afdal xalqilaay muhammadin afdal xalqilaay bila taraddud wala istibaay alayhi sal abadan xayra salaat alayhi sal abadan xayri salaat bi aduraat xiyaar wa siqaat alayhi sal abadan xayri salaat biha نرافق الخيار والصغار عليس الأمر انقر صلاة بها نرافق الخيار وصغار وابلنا وابلنا أقصر سراتنا وترك ما تلينا حتى يكون كلنا في الركات مقتديا بالسنة وسكنات ونجنا بجاي من دعوات والتقنا كسب والأخوات ونجنا بجاي من دعوات والتقي عنا كسب والأخوات والتقنا والتقفنا الهوى وما لا يعني وبك دعبا أخمنا bismillaahi mina shaytaani rajiim ñu ngi sant yàlla bu baax di sant Serigne Touba bu baax di sant suñu ñaari waajur sant Cheikh Massamba bu baax muy suñu buntu Serigne Touba ndax sama maam ak maamam ñoo àndoon mu sëñ saabu sa sant soxna maam Isa Mbàkke bu baax nga moo ñu boole ci liggéeyu Serigne Touba bi ñàkk ki ñaan lool woo na bokkam woo na ku dul bokkam woo na taalibe woo na jullit woo na murit woo na tijaan xaadir ci liggéey sëñ Tuubaa bi moom boo ko seeni muy wéer rek xam ne sëñ Tuubaa ko tax a jóg mu indi ñu fii nag ci juróom-ñaari soorool yi nga xam ne sëñ Sidi Maxtaar moo ko defaraloon sëñ Tuubaa mu faral ñu fii ci soorool bi maag soxna ay dem sëñ Abdou Assis Baara moom léegi moo nekk ci kër sëñ Tuubaa ga ca gaaru su Dakar soxna maam Jaara Mbàkke mi di ma wéttali ci place bi ñi koy ci sant bu baax nag di ko ñaanal yàlla na dajeeg tawféex sëriñ Tuubaa ak jullit yi ak taalibe sëñ Tuubaa yi tase yëpp di sant yàlla bu baax di leen sant xanaa sant Serigne Touba rek sant Soxna Jaara ndax ñun sëñ Touba dañoo làq ci gannaaw moo tax Touba tiituñu ragaluñ ndax comme sëñ Touba doo tiit doo ragal te comme làq rek da am foo làq te moo làqaale àdduna làqaale àllaaxira ñoo koy sant yàlla bu baax rek di ñaan yàlla teeyoo ko déwén yu bari te suñu borom jeexalal ñu mbas ñëpp barke sëñ Touba Euh, jërëjëf soxna si salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi leen ziar baax di ziar mbooleem ahlu euh, Kafe yëpp di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha am na Cheikh Mouhamadul Basir sunu borom guddal fanam te yokk ay di ñaanal sunu jàmbar ji soxna maam Issa Mbacke ahlu Kafe soldaaru borom Touba yal na yàlla yàggal ko fi te wéral ko te àggale yéene soxna si ñoo ngi leen baax ndog yi moom nii la soxna si dal def depuis bi ñu tàmbalee liggéeyub jumaay Touba xam ne euh, Cheikh Mouhamadul sëñ sëñ Sidou Mokhtar moom moo naaloon naal bu rëy bi defal ko Seexul Xaddim ñun ñu dong yi di wax ak yow ci ñi bokkoon ci liggéey jumaay Tuubaa ci lañ bokk soxna si nag sababu lii tax muy def lii bokk na ci dong yi nekkoon ci liggéey jumaa ji dafa jaayante woon ak sëriñ bi ne wax ne daa war su wàcc jotatee bu ñu wàccee moom moo leen waraloon ndogu ndax xam na ne kuy liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim moom moo la waral sa dund ndax comme ni ko ni ko mag ñi daan defee ci raay bi daan def ci bi ñuy liggéey jumaay Touba kon bu ñuy yeesalaat liggéey bi Cheikh Sidul def ko suñu borom too dogal mu jamonteeg moom mu nekk sóobu ci liggéey Serigne bi mu ne moom daal daa jaayanteeg Serigne bi képp koo xam ne wàcceti nga fi dootoo dem sa kër fi ngay toog ndogu lu mucc ayib loolu mooy sababu ndogu yi soxna si foofu daal mën na lefee tontogu ni di xaar leneen loo ñuy wax ci mbaaxu soxna Mame Issa ak taxawaayam bi nga xam ne dafa jël lépp jëndi ko taal bi. waaw soxna Mame Issa moom jëmmalu yoo xam ne bii ne boo ko xoolee rek soxna jaara nga yëg ci moom moom melokaanu soxna jaara ngay xool ci moom ndax euh, si jàng ak jàngale ci la nekk yar ak yare si jikkoolu jikkoom ji waaye naka la naa ko lekkal xasin jooju sunu borom tagg yonent bi moo ne ci moom muy ku yor ku jikko ku sell koo xam ne ku bëri de soxna si uuf na ñëpp xajoon na ñëpp nekkoon na ñëpp ndax boo xoolee jotaay bi ni mu mel fii noonu la ko def kër Sëñ Tuubaa gi nekk Daaru Manaan noonu la def ci kër Sëñ Tuubaa gi nga xam ne moo jàkkaarlu jumaa ji noonu la ko defee tamit ci sorol bi nga xam ne liggéeykat yi ñoo ko tuddoon sorol ahlu café yaakaar naa yërmandeem ak ci nekkoon di ci wax mën na kenn ku ne mën nga cee wax te loo ci wax ba bàyyi su morom tàmbalee bu waxee da nga yaakaar ne waxoo woon dara soxna maam sa jëmm la joo xam ne bii ne Sëñ Tuubaa rek ko ñor foo ko seen bu ko laaj li muy def liggéey Sëñ Tuubaa ko tax a jóg foo ko seen xamal ne loolu moom Cheikh Mouhamadul Mountakha joxe na ci ay tegtal yu bëree bëri bëri ndax moom diggante a kafe rek daanaka soo xoolee liggéey boobu da ngay xam ne lu lu lu yéeme la ci yoonu murit ndax euh, soxna Aïssatou Gawane mi nga xam ne moom bokkoon na ci ñi ko bokk na ci ñi nga xam ne bii nag ñoom lay roy ci ci kafe ndax soxna Aïssatou Gawane da daan faj aaju ci kafe lépp loo mos a metti boo ñëwee bu la joxee kafe loolu saafara lépp loo xam ne sa jaaxle la la boo bu la joxee café loolu loolu tàggoo café googu it euh, moom Cheikh Mouhamadul Mountakha secret boobu mu defaloon soxna Aïssatou Gawane Serigne Touba defaloon ko soxna si Gawane defal ko soxna kenn ku ne mën ngaa ci moom waaye soxna ñun ñu ànd ak moom ak bokk moom liggéey Serigne Touba xam nañ ne ku ko ëpp yërmande ci ci taalibe yi waaye ku ko gën a lewe ci doomu aadama xamuñu ko waaye ku ko ëpp xemmemteef ci liggéey Sëñ Tuubaa xamuñu ko loolu moom mooy. Mhm. daaw xam naa waaw lii moom dañ ko namoon loolu soxna si ndax euh, li fi jaaroon muy loo xam ne biin ne am bas la yàlla na ko fi yàlla jeexal te jeexal ko ci àdduna bépp euh, daaw boo xoolee niñ doon doxee mooy soxna si danaan togg ay ndogu di ko yóbbu ci daara yi waaye jotaay bi amutoon yaakaar naa amutoon ci jumaa ji tamit waaw kay kon day mel ni loolu murid na mën te boo xoolee mbooloo mi xam ne na moon leen lii ñax am na ñoo xam ne bii ne eh, diir bi ñu tàmbalee lii ba léegi waxtu nekk fu ndogu jotee seen xel ci jumaa ji lay dem kon daaw nit ñi nit ñi dañu tum dañu tum ranke woon waaye dañu wéetoon waaye jumaa ji sax da ko yëgoon ndax Seexul Xadim bi mu nekk njaareem su su weeru koor musaana musaana ñëw ay xéewal lay defal di joxe kër gi day fes dell a waral ba tey boo demee njaareem noonu lay mel jumaay Tuubaa ji tamit noonu lay mel kon bu fi liy jaaree ak daaw amutoon ku ne xam ne daaw moom jeexintal am na ci murid yëpp ndax kenn ku ne fa nga nekkoon wéet nga fi goo xam ne bii ne xam nga ne la nga daan def am lu ci manqué waaye nag loolu lépp dafa dëppoo lu sun suñ borom day day day jamono di wàcce yoo xam ne ay natt lay doon waaye ñu ngi ñaan suñu borom jeexal ko eh, yéen ñu ngi leen di sant bu baax li ñu ñaan seen site bi yal na ko yalla gën a barkeel te yaatal ko ba mu bokk ci médias yi gën yaatu ci adduna bi te suñu borom yokk seen i xéwal bu baax a baax a daal waxtu nekk nii lañ ko defee soxna si nag ni mu programme daayira yi mooy daf koy dafay tànn bis bu nekk benn daayira dina ñëw kon da jàpp ne fanweeri yi euh, benn bis benn la benn daayira la ci am son tey jii nag dafa tase teg soxna May Bousso mi nga xam ne daa doon soldaarab Sëriñ Tuubaa ci peggam lii di ko liggéeyal ànd ko moom ci liggéey borom Tuubaa bi te juróom-ñaari fan yi moom diir bi ñu tàmbalee liggéey ba léegi moo ko moo moo koy teew waaye da koo jégle waa séddewaat ko soxna jaara moo tax lu bëri bëri da ca feeñ ndax xéwal yi fi mu xam naa ñi sant Faara ñi sant Jaañ jàpp naa ne a danañ mën a dog ba yóbbaale waaw si ñu fekk la fii ci jumaa ji ci ndog yi nga xam ne ku tedd ki da koy def soxna maam isa loñu ci mën a wax di ko di ko ñaanal rek mu yàgg loolu te waaw ndax li muy def rafet na lu baax moom boo koy def yàlla moo lay fay yàlla na ko fi yàlla yàggal te mbir barke borom Tuubaa waaw te xool moom moo xam ne ku dikk mu jox la ndox moom ñu ngi koy ñaanal rek mu yàgg fi loolu te wér ci barki borom Touba maa isag ndogo bu ne fi la ñuy ndogoo bis bu jot ca kaw ca kanam nag yàlla na ko sëñ Touba gën a jàppale mu yàgg si wér yàgg koo man ci barke borom Touba loolu rek lañ koy ñaanal waaw ah, di ñaanal soxna si rek gudd fan ak wér danga xam ne ci moom ci yoonu Cheikhul Khadim la nekk macha allah ba saara fépp nii lay def kontaan ci ndogu yi rek di kontaan ci yéen tamit vraiment di leen remercier bu baax. di ñaanal soxna si yàlla guddal fanam wéeral cëram yi ci barke Cheikhou Khadim maamam mi muy liggéeyal daal yal na ko yàlla fay kontaan nañ trop. ñu fekk waaw ci ku tedd ki. ndogu yi nga xam ne moom la def. yéen ñu bu ñu sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa noonu la ñuy sant Cheikhou Khadim suñu yaaga tey di ñaanal suñu Muntaxa Basiru mu yàgg fi lool te wér di ñaanal suñu jàmbaar ci soxna Maam Isa Mbàkke Ahlu Café bindu sëriñ Modou Vary Khary ibnu Cheikh Massamba mu yàgg fi lool te wér di ñaanal jàmbaar ji ñu toog muy soxna Ayda Mbàkke moom sëriñ Abdou Si moom sëriñ Baara moom tamit mu yàgg fi lool ñoo ngi santaat yàlla bu baax a baax di wax alhamdulilahi rabbil alamina bim ñu dimbalee defal ñu tawfeex ak fekke ba ñëwaat fii di liggéeyal borom Touba ci fii ci Touba Daaru Manaan ànd ak ay soxna yu baax yoo xam ne buñ tuddee soxna Maga Touré Baye Fall soxna Ayda ak soxna ma Gueye ak soxna Anta Diagne ak soxna Ndéla Bakhoum buñ noppee day mën yóbbaale soxna yëpp kon ñoo ngi ziar baax di santaat baax a baax kon yéen la ñuy déglu lu ngeen ci laar incha allah liñ ci mën a wax danañ ko si wax incha allah. waaw xam naa ne ndog yi nag maanaam dafa am aw day am ak soppiku ndax xam nga ndog yi e, kër Sëriñ Tuubaa maanaam bi ku baax ki sosee maanam chaque jour bis bis boo romb ba sa des day gën a renforcer noonu la ñuy joxe ndogu première bu ñu déparé dañuy déparé maanaam ci parce que ay ay quatre cent ay mburu juróom-ñett fukki mburu mais nag mën nañoo dem ba si kanam fi ne nañu dem ba daal ñeen mama mën nañu dem ba ay deux cent mburu sax du fi doy ndax mbooloo mi chaque jour dañuy jógee garage ak ci mbedd yi mooy ak ñi nga xam ne ñi yor oto yi ak dawalkat sareet yi ñooñu ñëpp ak waa garage bi garage bu njëkk bi ku fi jaaykat yi daal ku fi romb rek ba tubaa ci kanam sax am na oto ba xam barki dem bu dafa sëf ay xéewal war kaa yóbbu waaye dafa gaare ndogo fi chaque jour ñu gis ñu bees ñoo xam ne te kër Sëñ Tuubaa ku ne xam ne ne daa baaxoo nit ñi du ko génn loolu tax ñun su suñu ndogu moom mu munuñ gaa munuñ gaa takk fenn maanaam fuñ ko takk rek mën na kaa weesu. waaw maam Isa moom xam nga liggéeyam dafa yaatu te àdduna bépp xam na ba maanaam ki fi nekk Serigne Touba muy mu Muntaxa boo fa demoon tim noonu la koy seedee moom day day wax ne kër Sëriñ Tuubaa yi dañ kaa warut a neenal ndax nit day ñëw ne bëreet ñu war a sone mu dugg kër Sëriñ maanam bu fekkut ndogu am fa war dara day am benn ngànt ci li muy def moo tax moom daa bëgg kër Sëriñ Tuubaa yëpp lu fi nit dugg rek maanaam mën a mën a jàkkaarloog am mbooloo mu leen bernde waaye liggéeyu maam Isa moom dafa jéggi dayoo ndax maam Isa lépp lu Sëriñ Tuubaa woote rek soxna maam Isa ma ngi fa mbooloo mi di mi toll ci téeméeri ak juróom fukk ak juróom yoo xam ne kenn ku ci ne ci koor gi dana am lum la sas nga dem fa di liggéeyal seen Serigne Touba pour sa ñaq mën a dugg ci liggéey Serigne Touba bi. waaw chaque jour dañoo jël fii parce que lu ay fanweeri daayira ak lu tegal loo xam ne bokkut ak ñi nga xam dañuy renforcer renforcer mooy di dolli waaye fanweer yooyu moom dañ leen a jël cornomètre fixe ñoo xam ne chaque jour kenn mooy ay waaye biñ ko ayee tamit lim leen wax mooy li tàmbalee ginaar ba gileem. bu buñ buñ buñ buñ am lenn lu ñuy bañ a xemmeema defal Sëriñ Tuubaa ci pàkkam bi ndax suufam buñ ko neenal biñ tàmbalee depuis maanaam bi weer feeñ ba léegi chaque jour ku indi ndogu rek bu kenn indi da nga jàpp ne kooku moo dàqale dafa dem ba dañ koy jongante sax nga xam ne am na ñoo xam ne sax ñi war a aye ay ndog waaye ay déguisement sax dañ koy xotti ndax nee seen xel yëpp day dem ci Cheikh Ibrahima Fall te soxna si di moom wax àll bi ma ne ko mbàkk ma liggéey bi gën gaaw ci liggéeyal borom waa egg ji sëriñ bi mooy jaar ci yoonu Cheikh Ibrahima moo tax ndog yi laa bëgg a sos ñu koy def ndax aluga bi liggéey gune ne manqué waaye ndogu nag laa bëgg kër Sëriñ Tuubaa ba jumaa ja ma ma jéem kaa def pour suñu liggéey gën a gaaw ci Cheikh Ibrahima waaw daaw moom ni mu demee tamit ñun teew ñoo liggéey ndax ñun suñu liggéey moom chaque jour moom moom avance la amul arrière li Sëriñ Tuubaa ne sama tay ju ne gàcc na sama démb ku ma defal loo man ma defal loo mënut nga defal ma loo mënut fay la la jomb loolu lay soxna maam Issa def daaw biñu demee ba tëj poste yëpp nga xam ne jàpp nañ ne liggéey Sëriñ Tuubaa dana am feebul daaw boobu la soxna si ne léegi nañ nañ jëlaat oto képp koo gis mu aye fii daayira ndogu ba kii aye tey daaw lam toggoon sax dañu jàpp ne moo ëpp lu ren ndax da du dugg ci daara yi ak néew doole yi nekk ci ay eh, ci sanjaan yi dina yoon ndog yi ba ba ba koor gi jeex kon ñun suñ suñ ndogu du du du du am arrêt chaque jour rek ñoo ngi ci ndogu yi di liggéeyal borom Tuubaa waaw xam naa ne li ma ci dolli mooy kër Sëriñ Tuubaa gi ñoo ngi def maanaam eh, maanaam den def benn appel ñu ndax soxna si kër Sëriñ yi moo koy moo koy setal ndax kër Sëriñ Tuubaa gi Daaru Marnaan Soxna Aida mii ngeen di jàkkaarloo mooy liggéey bi chaque àjjuma lépp luy ay bâtiment ak ëtt bi lépp lu fi tax ci kër Sëriñ Tuubaa gi ñun ñoo koy liggéey soxna si ndigale soxna si def ko addi borom Tuubaa lu mat fukki at yoo xam ne ñoo ngi ci kër gi ànd ak Soxna Aida mii waaye lenn loo xam ne ñun am nañ ci luñ ci sart lu liggéeyal borom kon ñoo ngi def appel ne kër Sëriñ gi di bëgg nañ déwén incha allah bu ngeen ñuy fekk dañoo fas yéene baas incha allah rabbi ndax soxna si moom lépp lu mu engagé xam nañ ne Sëñ Tuubaa dana ko si dimbale ba dama ko bëgg mu am ko waaye bëgg nañ mu gën a mucc ayib ndog yi ba maanaam bu ñëwee sax duñ toog ci suuf kon loolu ñoo ngi koy appel àdduna bépp ñu xam ne soxna Isa moom liggéey Sëñ Tuubaa kese moom moo ko ñor te buñ jógee ci ndog yi itam ñoo ngi appel ne ñoo ngi jëm ma euh, tabaski dana am ay xarit tabaski yoo xam ne ñoo ngi koy waajal war kaa yut si muntaxaa defal ko addiye borom Tuubaa ci waajtaay woowu bu jógee fii rek fa lañ jëm kon yal nañ ci yàlla defal tawfeex day ñuy xéewal yàlla day wax di xewaay li si na daamoo fi xidmat wax maaraamoo ñoo ngi tubaat baax kon soxna si waaw waaw kon eh, mbokki taale bi ñoo ngi leen di soññaat ne ndog yi soxna si def fii ci Touba Daaru Manaan dafa am bis boo xam ne tim ñoo ngi leen koy bëgg nañ jëspara ba ñëpp ñu dégg bis boobu nag jéglee luñ ko kenn ku dul Cheikh Ibrahima mu ñaar fukki koor yi nga xam ne Cheikh Ibrahima dañ ne ñetti fan yi la gisante ku tedd ki waaye ci ñaar fan yi la jox Sëñ Tuubaa boppam àdduna àlaxira bis boobu nag ñi ngi koy amal Touba Daaru Manaan ci ndigal soxna maam Isa Mbacke Ahlu Kafe ak ci ndigale soxna Ayda Mbacke mii toog ak ndigale soxna Anta Diagne ak soxna Ndeela ñoom bis boobu nag bisam Cheikh Ibrahima Fall yéen ñi sax dañ leen fay soxla ndax bis boobu lépp luñ am donte dañuy màjjaale tim dañu ko def si bisum Cheikh Ibrahima Fall kon ñoo ngi ko abel àdduna bépp ñoo ak yaa Marème Gueye tim jëwrin nga xam ne moom tim kër Sëriñ Tuubaa gi mooy jëwrin yi jëwriñ ñëpp moom tim fekkee na jetaay bi ko ñoo ngi tuwaat baax sant nañ soxna si bu baax a baax di ko tëjee suñu kàddu di wax ne lii moom li ñu gën a ñor ci cant gi moo ñu gën sax li moo ñu gën a li ngeen ñu laaj ndax soxna si li muy nambatal ci am mbooloo ci sëñ Tuubaa loolu wax di yàllam sëñ Tuubaa de bu doon kuy ñëwaat ci saayir ñu koy gis bët moom maam isa moom du soppi aw doxin ndax addunaam yëpp lim nga bëgg mooy jël ay xale di leen nampatal ci sëñ ba maanaam duñ xemam dem leen na ludu Sëriñ Tuubaa ndax ñun ñii nga fekk fii nu ñu mel rek gannaaw yàlla soxna si moo ñu ko dimbalee samp ñu fii ànd ak ñun di ñu teete te tim luñ def benn rek mu def ko fukk ndax ñun woor na ñaari weer ba duggaat weeru koor yi bu noppee day génnaat wooraat gungaat weer mu ñeenti weer loolu jàmbaar dagg moo koy def ko ñoo ngi tubaat baax jërë ngeen jëf. Ah, est-ce que macha allah yal na yàgg rek baax si. amiin door lan ko wax ndeysaan a aasbillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaan rahim alhamdulilahi rabbil salli ala sayidina muhammadin wa sallim barke xaadima rasul maa ngi sant suñu borom subhaanahu di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa di jaajëfal si ahmadou xadim xaadim rasul Ah, di nga laaj nga ma nag loo xam ne maanaam lu yàgg ci yoon wi la ndax daanaka boo ko dee xool yoon wi looloo ko yor xidma muy liggéey alxibaada laa jaamu yàlla ak maanaam ber bernde yooyu ñooy ñooy yoonu murit ak jàng xasida yi ak jàng alxuraan kan te leen lu ci ne boo demee kër sëñ Tuubaa gu mën a dem fekk ko fa waaye foo dem njabootu borom Touba ne fa fii mi bitim réew da nga fa fekk loolu kon loolu mooy yoon bi waaw bu dee sama digganteeg soxna maam Issa nag moom ahlu matt la ak ahlu kafe ñu Cheikh Ababacar Sarr ahlu matt maam Issa Mbacke sëñ ma Samba Mbacke ahlu kafe ndax seen ñaari maam yi ñoo bokkoon nekk ci njaarim te buqatal mbaarak Cheikh Babacar Sarr daan taxan matt mi ku ne yàgg na koy dégg Serigne Touba ko taxanal ma ma texe la yaa ku la yaakaar waaw matt moom àjjuma bu ne yor-yor bu la fekkee njaarim da gis mu ànd ak ndënd yi dugg ca biir boqatul mubaarak ñu wàcc fa matt ma matt moomee nag mattum jalambaan la woon Cheikh Babacar Sarr ko def ay saako di ko fajar di tedd ki matt moomee nag moom la sëñ ma Sàmba daan jël di ko tàngale kafe gi di ko jox kurél bi jàng xasida yi moom mu ngi koy maas kon defe naa matt ak kafe benn mën dem bàyyi sa morom kon maa moom maa moom ba yàlla dogal na ñu daje bitim réew soxna maa isa foofu xam xamee ci Italie ay liggéeyal sëriñ Tuubaa foofu moom ñuy liggéeyal sëriñ Tuubaa ban daje kon mel na ni eh, la ko sos mooy sun maam yi moo nu boole may ahlu mat moom muy ahlu kafe suñ ñaari mbooloo yooyu bu nekk nekk benn kenn mënetu leen a xàmmee ñu boole leen lum xewle mu ànd caag moom lu ma xewle mu ànd caag man mbooloo mi nga xam ne Serigne Touba nu boole nag ci lim nu boole rek mooy lim wax rek Touba li Abdul Muridin Saadix laxumoo bi xidmatin aw bi bi awadiyaati kon loolu rek lañ àndee yi nga xam ne nag soxna Maam koy def muy maanaam mbirum ndog yi sëriñ Touba am na lu mu ci wax fekk biiru jullit bi xiif nga def ci biiram. aw ñam ba mu regg mu ëpp doole tabax juróom-ñaar fukki jumaa kon def naa biir yu bari tey jii feeññan ci kon nag liggéey Serigne Touba noonu rek lay demee te ni mu nekk fii ci jumaa yi Touba ñi njaarim gi bàyyi ko jumaa yi njaariñ jooju noonu la mel boo fa demee boo demee ko Masaalikul naan dakaar noonu la mel kon Serigne Touba xéewalam yi daa baawaan saawaan fépp dañu ñaan rek yàlla fayal na ko yàlla gën a taas ci barkeem dañ gën a feddali ko suñu laxasaay fa yéene nekk daal taalibe Sëriñ Tuubaa rek jox ko suñu dund ak suñu faatu ñu ngi leen di sant nag yéen waa tele bu baax di leen gërëm télé bi nag xam naa gan la ah, waar bi TV kon nag yàlla na sama borom def ko muy ay télé télé yu bëree bëree bëri ci réew mi saawaan baawaan ndax Sëriñ Tuubaa noonu rek la mel man ngaa xam fa muy tàmbalee waaye mënoo xam fa muy yem waaye nag soo ko nekkalee rek mu nekkal la. kon nag yàlla ni ñu ko nekk yàlla na Serigne Touba nekk suñu dund yàlla na jaxasoo ci loxol Serigne Touba bañ cee jóg ba faw barki borom Touba li leen di sant nag te di leen gërëm bu baax a baax di ñuy itam directeur télé bi di ko sant sëñ Bassirou waaw ñu ngi koy sant sëñ Bassirou bu baax di ko ñaanal ak mboolem emploi yi ak yéen ñi nga xam ne yéen a ma yéen a ma ta dalal nii. ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal jàmm jërë ngeen jëfati jërë ngeen jëfati jërë ngeen jëfati jërëjëf borom Tuubaa asalaamaaleykum barakatu.